Jotali point net moo leen di jox ay xibaar ci tàng-tàng bi net ay xibaar yu wóor ay journalistes yu mën seen liggéey Jotali mën ngeen a ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck dale na jàmm ñoo ànd xëy yër i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi di la Soleil xëy du ñu xibaar naan ñu déggoo am na ci diggante njiitu réew di président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñu waa conseil constitutionnel ci bis bi nga xam ne moom la ñuy amal élection yi ndax ñi nga xam ne ñu waa conseil constitutionnel ñoom nag dañoo waxoon ne mars la Macky Sall ci 24 yi yéene kaay gi de Soleil ne na kon mbir mi jeex na maanaam lu waay doon jaay léegi tey mu lambo yéene kaay gi ne na 19 candidats yi nga xam ne ñoo war a dem ci élection yi tey jii la ñuy commencé di enregistré fi nga gi ne na niki suba ci samedi jee maanaam la campagne bi di démarré yéene kaay gi de la Quotidien ne na campagne bi fukki fan ak juróom la yéene kaay gi di enquête xëy du ñuy xibaar naan ñu élection yi nga na bopp yenn ciy candidat ndax bëri na ci ay candidat yoo xam ne maanaam amuñu ay moyens ngir dem ci campagne bi rawatina amuñu temps doy yéene kaay gi ne xëy a xëy du ñuy xibaar naan ñu Karim Wade ak ñi ci dara naka journal bi tuddee mooy Karim moo fa ndax communiqué bi nga xam ne moom la Badio Camara génne loolee ndax mën naa effacer délibération bi nga xam ne juróom-ñaari saas yi def nañu ko yéene kaay gii di la xëy di la can ndax ñi nga xam ne ñu waa conseil constitutionnel ginnaaw bi ñu defee délibération dañoo génne ab décision de justice daal di wax ne fanweeri fan ak benn ci weeru mars ci la ñuy amal élection yi président Macky Sall wax 24 mars la ñuy amal élection yi Mamadou Badio Camara mi jiite conseil constitutionnel ab communiqué la génne daal di wax ànd nañu ci Macky Sall dogal bi nga xam ne jël na ko loolee moo tax nag journal bi xëy di la can ne communiqué Badio Camara boobu maanaam ndax mën naa effacer décision bi nga xam ne juróom-ñaari siis yi jëloon nañu ko yéen kay gi neen Habib Sy di yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Habib Sy àndul ci nga xam ne ñëw nañu wéeru ci dogal bi nga ne Macky Sall na ko loolee tamit Thierno Bocoum àndu ci yéen kay gi di Vox Populi xibaar naan bi jamono ji ñoom la ñuy sàkko mooy ab maanaam nit koo xam ne ku tuddee njaaxaanaay la ci lu jëm ci wàllum organiser élection yi yéen kay gi di Libération l'indépendance défilé 4 avril bi annulé yëgle nañu ko yéenekaay gi de la point xëy fësal xibaar naa ñu njiitu di président Macky Sall daan na inauguré yu yees yu maison militaire alxamis ji nga xam ne moom la ñu génn alxamis juróom-ñaari fan ci weeru mars ci ñi nga xam xibaar naa ñu tey ji la mars tey ji la bis bi nga xam ne moom la ñu jigéen ñi tey ji jigéen ñi ñoo moomee kaay yéen a kaay gii di fu xëy séq waxtaan ak Zahra Iyane Thiam wax na ci 8 mars bi ak évolution bi nga xam ne am na ci ndax jigéen ñi jamono ji gën nañu leen a jox seen cër ci réew mi yéen a kaay gii di moom xëy wax ci koor gi ak njëg yi nga xam ne jamono ji dafa yokk ba maara daytaal yi loole nag tiital na ñi nga xam ne ñooy yor seenub sewo maanaam dem sa marché ba yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy nag di ñu xibaar nan ñu ñi nga xam ne ñu waa UNACOIS waaye sala ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax njëg yi nga xam ne yokk nañu ko ci marché bi yéen a kaay gii di la Tribune ak Le Soleil ak xëy wax ci lakk gi nga xam ne na ni ki démb daan nañu koy nemmeeku ci tribunalum Dakar journal bi de la tribune nee na benn waaye bu ñuy wax Dakosa moom la joxar beegun baaraamu tuuma ne moo def mbir munu mel waaye nag Dakosa moomee dafa bokk si ñi nga xam ne maanaam ñooy nettoyé tribunal bi benn ruq moom la aménagé maanaam moom la defar di fa lakk beñe di ko jaay ci biir tribunal bi lakk bi mu doon lakk beñe nag gaz bi moo explosé yéen gi nee na teg nañu ko bi mu doon lakkee Lamb xëy du ñuy xibaar naa ñu ak Siteu taxawal nañu ko weeru novembre la koy bëree. Jotali point net moo di jox ay xibaar ci tàng-tàng bi Jotali point net yu wóor mën seen liggéey Jotali point mën ngeen a ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck